cette di love. Uh. Ni di leen nuyuwaat di leen dal ak jàmm fi nga xam ne di Futur Média si pencu. ñu war a waxtaanee nag discours à la nation bu président de la république di Macky Sall war si ànd ak Ibrahima Bakhoum di analyste politique ak di si Albert wante balaa loola dañu digg si xibaar bi nga xam ne nag agsi na fi léegi euh, ñàkkoo leen xam ne nag Ndakaaru mu ngi taw fi mu toll yi nag ba tax na lu ko nekk. côté Yoff virage euh, jëm aéroport Léopold Sédar Senghor ñu ngi xamal ni nag ay fiilu courant ñoo dagg daal di tegu fi nga xam ni nag moo di gaaw tali bi fi oto yi war a jaar ñu dëkk si waxtaan wi ànd si ak ni ma leen ko waxee woon ak Mamadou Sy Albert ak ki nga xam ni nag moo di Ibrahima Bakhoum di ay analyste politique war a waxtaanee discours président Macky Sall Ibrahima Bakhoum mu ngi en ligne ba monsieur Bakhoum maa lay nuyu. salaamaaleykum maa Euh, ñu jëm si waxtaan wi nag euh, mu di discours bi tey jile la ñu war a xam ndax nga xam ne nag moo di président Macky Sall euh, dafay doon candidat wala lan lay jëm def jëm si nag élection présidentielle yi war a am si atum 2024 yow mi nag en tant que qu'analyste politique waaye itam sa xam-xam màcc si wàllum tes xibaar ban jàngat ngay def si discours bi nga xam ne nag président Macky Sall war na ko war a mën a yëkkati tey jile jëmale ko si askan wi ak tolluwaay jamono. waaw jàngat de boo ko déggee mooy lu ñu wax ba noppi ci la ñuy des ci la ñuy seet la lam wax luñ ci luñ ci jële waaye comme waxagul euh, ci naka lañ koy waxee ci ci ci seenu rek lañ ci mën a nekk nekkagum seenu yi mooy man laa wax ne li ma ci jàpp mooy li wax yi bëri na euh, lu mot ñetti at a ngi nii ñu ngi ciy wax dina nekk candidat 2024 du ne candidat bi moom mu ne daal waxul waaw waxul déet waxul waaw waxul de dina léeg-léeg day dem ba mu yàgg mu mel ni dafa junj waaw maanaam waaw yuy ñëw mu dem ba mu yàgg taxaw li muy junj waaw buy ñëw nag moo gën a bëri waaye dama jàpp ne bu ma nattee ñetti euh, maanaam ñetti wax yi waxtu yi benn ba mu waxee France ci ba mu waxee ne ji euh, maanaam gën a gën a gën a gën a dëgëral taxawaay pour yokk liggéey bi am nu ñu ko jàppee mu ñëwaat fan ci gannaaw daal di waxat ne ji moom daal. li nga xam ne moom amu ko moom moom la war a wax bu koy wax xam na waxtu mu ko war a waxee te kenn du ko forcer dara li mu mujjee wax nii mu mel ne dafa gën a dëgër waaye man li ma mujjee jàpp ba ma dégloo waxi France bi dama ne président fi mu nekk ba am na noo xam ne bi ci wàllu dialogue bi na mu ca waxee maanaam bu may wax du doon lu ma kenn forcé man maa koy tànnal sa bopp maa koy waxal sa bopp su ma sago laa koy waxee ba ma déggee wax loolu ma delluwaat ci la mu waxoon ca France ma ne président mu ñuy bëgg a xamal ne moom naam dinañu wax ne déedéet du ma nekk candidat waaye nag bu boobaa bu kenn bàkkoone yi euh, coowleeg pression bi moo tax mu dellu ci gannaaw maanaam bu fekkoon ne nit jàppoon na ne dafa bëgg wax waaw waaye pression bi tax mu ne déedéet mu boole ci nag waxaale tamit ñeneen yi nga xam ne ji ñoom ñu naan ko toogal toogal toogal mu xamal leen ne ji yéen tamit seen toogal toogal bi mun tax ma jël benn décision loolu comme la muy ut fi saa si mooy dañuy léegi koo xam ne dafa bëgg euh, indépendant ci wa ci waxam maanaam boo xam moo koy tànnal boppam kenn du ko puus ci dara kenn du ko soññi dara waaye nu mu mun di demee comme coow li bëri na li ma jàpp daal mooy xëy na nañ ci ak ci kanam incha allah ni bu coow lii ak demee ba ak si fii mu xool réew mi li fi mun a am mu xool li nga xam ne ji xewoon na fi te bëggul mu xewaat ndax nangam coow li li bëri toll fii nañ xëy na dañ ci daal fi ma jàppagum daal mooy na ji dina bett ñu bëri waaye jàpp naa ne danaan léegi daal nii la man maa leen waxoon ne waxaguma waaw waxaguma déet léegi nag waaw déet laa leen wax waaye dégg gi xamal ngeen seen bopp ne man kenn force bi boo ko man la neex ma def ko parce que damaa jàpp ne lii laa war a def pour jàmm réew mi bu ko defee booba la ma cay ci ndam dafay ëpp leneen Euh, euh, euh, bi nga ko déggee nag keroog bi muy dalal ñi nga xam ni ñoo di mair yi ak président conseil départementaux yi am na ay kàddu yu muy yëkkati muy xam ne ni bu mu daan wax naan daal ñii suma leen toppoon déclaré naa suma candidature bu yàgg bi muy wax nag si opposition bi nga xam ni dañoo jàpp ni warta def li nga xam ni nag moo di troisième mandat tey jii boo déggee loolu noonu ak li mu xam ne nag jàpp ne ni war na ko mën a wax tey. yow jàpp nga ni euh, dafay dëggal wala dafay dellu gannaaw ak kàddu yi mu yëkkati ak fi nga dellusi woon ni wax na ko ci France dellusiwaat ci Sénégal wax ci yeneen kàddu yu ni mel. waaw bul fàtte ne ji président njiitu parti la parti boobu di nekk euh, parti bi ëpp ta ëpp taxawaay ëpp doole ci Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar yi ña ñu nekk ci fi mu nekk ci pouvoir bi maanaam diggante président ak ñi ñi fal ñëpp ministère yi demee yooyu bokk na jëlee. loolu bul fàtte ne comme comme moom dafa am parti xamal na boppam ne ji maa yoroon parti bi maa ko sos jóge naa fi parti bi amatul loolu tamit du doon ndam ci moom ci wàllu politique bu ko defee nag ñi nga xam ne ñoom la àndal ñooñu lay bëgg a dëgëral woon leen nit ñi néew nekkatuma fi pour nekk président waaye mag yéen la ñoo bokk parti mun nañoo wéy ndax PS am nañ Abdou Diouf mu jóge fi terewul PS na fi Abdoulaye Wade am na fi PDS am na fi Abdoulaye Wade jóge fi terewul PDS a ngi fi donc lu mel noonu la bëgg a def mais nu mu ko mën defee mooy du xëy rek bàyyi ay loxoom bokkatuma rek mu jeex il faut mu dëgër leen samp ba ñu taxaw bu ko defee ëllëg si biir bu fekkee ne am na kenn koo xam ne moom la bëgg samp kooku am ñu ko jàppale am ñu ko dimbale maanaam fi mu nekk nii na téegum euh, euh, buum bi ba nga xam ne bu bu yëfi tasaaroo kenn ku nekk am nga li nga xam ne moom la ñuy xaar ci yow buñ demee bañ ne moom bokkatul it am na koo xam ne bëgg na xëy na kooku wutu ko ci ci ci kaw kon na préparé ñi pour ñu ñu woteel kooku ñu dimbali kooku parce que bu ko deful léegi maanaam xëy rek bàyyi moom keneen ku mu wax ne kay kay kay nekkal fi pa euh, nekkal ñu ñun candidat bu boobaa kooku daa fekk ne néewal nañ ko ba noppi noppi doole wala bu ñu ko fekkul ne néewal ko néewal nañ ko doole joxuñ ko doole léegi nag dafay ut jox kooku doole fi mu tollagum nii bu ko joxee doole yi ko joxee wax ak maire yi fii dëgëral leen waaw xam nga nit ki boo koy kañ léeg-léeg di ko may may may jàmbaar di ko may di ko may fit donc mu kañ leen fii wax leen nee na ñu ngi pareegu ci liggéey bii dinañ liggéey mais dinañu liggéey bokkul ak dinaa liggéey dinaa benn nit bi la dinañu ñun ñëpp la jàpp naa ne kon ci biir ñun ñëpp yooyu laa wax ne daal la mu wax France boo ko nattee pour euh, bu fekkoon ne dañ koy wax ci ci ci baat français euh, ci waa ci français dañu wax ne ji c'était juste pour reprendre la main manam coow li dafa bëri won lool ci nangam fi ay CPI fii ay ñoom Ousmane Sonko fi ak lu coow li bëri won bam mu lenoon nekk daanaka moom kenn déggatu ko fenn surtout ko ñu wax ne am na ñu fi dee te kenn waxu ci mom ci boppam waxu ci légui na bu demee bam mu yàgg mu waxee ne dañu wax ne eh, reprise en mais de la chose maanaam léegi dafay demaat jëlaat na nag kàddu gi nag ba tey am na borom man mi may borom kàddu gi foofu loolu laa jàpp ne moom la waxoon waaye daal boo ko nattee ñëw yëpp boo ko kilee li ma wax daal mooy comme xam na ne euh, bu fekkee dafa tëb rek bàyyi nii dem te am am na ñoo xam ne xëy na ñu bëgg nañu bëgg nañ ko euh, wutu te ñoo ñooñu buñ ko wutoo nekk ci biir euh, parti bi nekk ci biir APR wala ñu nekk ci biir Benno surtout ci biir APR parce que nag moom wax dëgg APR lay gën a liggéeyal bu boobaa daf leen di wax léegi nañu kaay kat xawaleen maa ngi seen gannaaw maa ngi yéen la ba ëllëg waaye nag lu ci mun a xew booy ñàkk a nekk président du tere ma mën a continuer wooy ak noonu laa ko jàppee. ok euh, ñu ngi ànd si waxtaan wi nag euh, gannaaw yow Ibrahima Bakhoum ñu ngi see ànd ak ki nga xam ni moo di Mamadou Sy Albert dañuy des ak yow rek nga garé ligne bi ñu jëm si ki nga xam ni moo di Mamadou Sy Albert di analyste politique euh, moom itam Mamadou Sy Albert ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. waxtaan wi yaa ngi si door yeeg si ñàkkul ni déglu nga kàddu yi nga xam ni nag sa naataango di Ibrahima Bakhoum yëkkati na ko tey jile yow lan ngay xaar si discours président Macky Sall. ak nga xam ni nag li nga xam ni moo di tolluwaayu jamono. waaw nga baal ma ma nuyu Ibrahima Bakhoum maa ngi koy nuyu bu baax a baax euh, lu ñuy xaar nag euh, bon euh, mën nañu wax ne tey ji Sénégal yëpp ñu ngi xaar président est-ce président dina wax candidat la am dina déclarer du candidat loolu loolu moom loolu la xaar ban tontu la war a joxe tey jii ban kàddu la war a yëkkati. pour ne man candidat la wala duma candidat loolu la ñu xaar bon man nañu wax ne aussi du yomb ci boo xoolee euh, histoire du Sénégal à part euh, su mu fàttali euh, président Senghor bi muy dem def na discours à la nation te discours boobu discours pour ne que man damay jóge ci bopp réew mi dafa annoncer son retrait Bon, à part euh, président Senghor, Abdou Diouf de Foucault, Macky, euh, de Foucault, Macky Sall, presque du du dafa wuute ak discours Senghor Senghor de ñëwoon tabou. mais est-ce que Macky Sall dafa préparé pour def discours tabou à nguur gi yaakaaru ko parce que euh, ni mou demee nii euh, euh, man ci li may gën a yaakaar mooy que dina nekk candidat Ah, dina ke candidat parce que euh, moom chef APR APR amul sax euh, ki nga xam ne tey jii mën nañu wax ne moo topp ci Macky Sall bon sooy bi naka noonu Macky Sall chef APR mooy chef coalition bi donc gisuma fan la ñu mën a jaar fii ak euh, juróom ñett weer pour tànn benn candidat mm-hmm. donc loolu muy benn ñaareel bi mooy que euh, Macky Sall wóonu ba tey ji en tout cas ci li ma gis que dafa bëgg a jóge ci nguur gi ci nguur gi loolu def na jaloogam am euh, xam nañ ni que lu mu euh, tënk ci dialogue bi mooy que candidat troisième candidature kenn waxu ci dara donc loolu yëpp day firnde ba suma xel daal que dina nekk candidat mhm. wante na naka la la nar a expliquer décision bi loolu mooy jafe-jafe bi est-ce que day sukkandiku ci constitution bi est-ce que day sukkandiku ci politique est-ce que day sukkandiku ci moom dafa bëgg a continuer bon vraiment lu mu nar a lay euh, moo nar a indi coow euh, ndaxte ñëpp ñu ngi koy xaar su fekkente ni Sénégal yi ànduñu ak li mu teg ci seen loxo euh, loolu defe naa mën na indi coow beneen hypothèse bi nag mënuñu wax ne du retiré ndaxte pression bu mu am tey ji muy opposition Sénégal mu lu xew fii ci mois de juin muy ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew di ko artu loolu yëpp mën na ko pousser mu mu mu mu bañ a nekk candidat loolu aussi def naa mën nañ ko sóoraale mais ci li ma yaakaar daal euh, tey ji pour Macky ak APR ak Benno mën na teyaat nguur bi deux mille vingt quatre

ma yokk sa ma yokk sa kon yi tuuti pour nuyu Albert <laughs> ma maa waroon njëkkee donc Albert maa ngi lay nuyu di la sant bu baax a baax ci euh, xel bi xalaat yi euh, kon jël naa tuuti ci seconde yi léegi ci des mooy lii rek la man daal jàpp naa ne bu fekkee ne ci utam jàmm rek lañ nekk gis nañ loo xam ne ji mën na indi coow te président fi mu nekk coow arrangé wu arrangé wul kenn ci biir réew mi moom jàpp naa ne tabaxkati jàmm la bëgg a nekk. moom la bëgg a wàcc ci moom la bëgg a tàggoog Sénégalais yi ci wàll ci wàllu nguur maanaam dafa des ak ñun ñëpp waaye tàggoo ci wàllu nguur ci la ñu rafetal ci mu ànd ak dal ci mu ànd ak jàmm mu génn bu mu jaaree ñu ne ah waaw kii de moo fi waxoon nangam lam doxoon la def moo tax ma jàpp na ji déedéet bokkuma ci la nar a wax. Mhm. Mamadou Sy Albert. waaw mën nañu wax ne euh, fu ñu toll nii sénégalais yi dal lañu bugg

mu ngi noonu mu doon waxtaan bi ñuy euh, Mamadou Sy Albert diko ko jaajëfal Mamadou Sy Albert ak nga xamni nak nag ibrahim di ñom ñaar ñëpp day analyste politique euh, don waxtaanee discours à la nation bu président Macky Sall wara a def euh, tey le bu 20 heures jotee wara addu ci mbirum troisième candidature am ndax dafay jëm sélection présidentielle yu 2024 wala du ci dem ak sulum si don dal mbirit na dina fi ak ay waxtu yu néew manam fi ak 20 heures di 8 heures ci goudi balaa booba nag euh, woy leen ak euh, sunuy programme fii si rajo Futur Média léegi-léegi rek euh, li des si programme yi ngeen si ànd ak suñuy équipe rawatina ki nga xam ne nag moo di passe partout ak ñi muy àndala